asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 11 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy tey dooree ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk ka ca xëy fés mooy le roi des ren Modou loo mu parcelle ak kan biram ñi ngi ma nga xam ne asawam la daal yore ko mel ni ki nag kay wax nag du Modou waaye biram moo xëy tey di wax biram nag la mu xëy di wax daal dana li am ba des daal seen diggante Ama Baldé ji nu jëm daal jàpp na ne ñoom lenn loo xam ne nii dinañ ko ca foye wala ñu koy négliger biram na ne ku koy xaar moom booye ba nga toog ndax nag li am ba des daal biram na ne mbir yépp ci yoon lañ ko fas yéenee teg ndax itam nag ne na ku xeebu xal mu lakk sa dàgga loolu la biram wax moo tax ne na benn détail boo xam ne daal dañ koy xeeb ci bis boobu biram ne na du ca mën a am lépp ci yoon lañ ko fas yéenee teg jàpp na ne tamit ci lamb jiinu ne moom di ci bëre biram ne na na ci ba amul ci lamb ji mbër yépp nag la ko yebale yemu ca ba tey moom biram ñëng jàpp na ne kii di Balla Gaye numéro 2 ak Ama Baldé biram ne ñoom ñaar doon tey mbokk la ñu de waaye du ñu benn ci bëre du ñu benn ci ab géew du ñu benn tamit ci lamb loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moom moo di biram ñëng ba tey yemu ca ñëw na ci combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante mbërëm mii di Modou Lo ak Ama Baldé ba tey mu ngi cay waxaat rek ne na ki nga xam ne moom moo di mbërëm daal di Modou Lo biram ay wax de ne li mu gën a soxla ci combat boobu daal dana ko am mooy lan force ak gaawaay maanaam rapidité ne na yii daal soxla nañ ko ca tey itam danañu ko am buñ ca yeggee moom biram ñu ngi moo xëy tey di wax lu mel ne ki noonu keneen koo xam ne nii ba tey mu ngi jëxat mu jëkku yëglikaay bi di sunu làmb muy Lac de Guiers ngeen fi gis bërki dem fan yi ci Equivox mel ni ki nag yëglikaay bi di sunu làmb moom xëy na tey ñëw ci moom di ko xamal daal sa diggante ak Eumeu Sène ak lu mën a xew daal jàppal ne mission commando ca ndax nag yëglikaay bi la ko waral mooy Eumeu Sène dafa dugg géejawaay mat moom daan ko daan Balla Gaye numéro de ñaari yoon te mel ni kon nag moom Lac de Guiers fi mu nekk nii daal mbir mooma moo ko war a régler tey xamuñu nag dana yomb wala du yomb waaye daal yëglikaay bi ne ko mission commando nga amee am na keneen koo xam ne tamit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 jox mbëri ñu tere ñu ñu war a def suñu la nga xam ne mooy suñu lamb pratique suñu sport mbay ne lii kay moo mënta ne na booy tere da ngay tere ñëpp ñëpp yemandoo ci ñun ñëpp ñu toog waaye ñii di yëngu ñii toog mbay na loolu du aw yoon tey suba waxi noppi yemu ca ndax nee na promoteurs yi loo ama am solo la ñuy def ci réew mi te faw état bi xam ko ndax nee na ñuy jël ay millions di ko jox mbër yi mbër di ko jox seen ay wayjur réew mi di mën a dox ñuy wa yokk la nga xam ne moo di emploi kon jàpp na ni ñu mel noonu dooleel leen kese lees war a def ba tey nii ñeneen ñoo xam ne nii moom ay menaces lañu mel ni nag Ba ma leen jiite demoon na ca Thiès seeti menaces yi nekk ca Thiès waaye ñoom daal li fas yéene ne daal maanaam daal a lañ ca nar mooy teg ca ay garde fu maanaam sécuriser ko ba nga xam ne daal du képp ku ñëw rek mën caa dugg def la nga neex la la neex déedéet ñoom daal fi mu nii moom fas ñu yéene def loolu tey suba waxi noppi buñ fa jógee dañuy continuer dem fa nga xam ne nii moom moo di ca Equivox lan fay fekk nag moo di bombar Bombardier moo xam ne daal woote woon na démb ca Mbuur maanaam loo xam ne yàgg na ko def ay at a ngi nii mu koy def maanaam daal andi handicapé ak ñu mel ni ki noona at mu jot dana leen dimbali daan tëgg ay lamb di leen ko dimbalee démb nag la mu def mooy ab ceebak ak saaboog suukar ak meew ak ay kaye ki liifar ak lépp daal la boole jébbal leen ko ngir nag gën leen a jàppale daal leen xamal ne nag fu ngeen ma fekk leen fa ci wàllum jàppale Bombardier daal loolu la def dem vidéo ba nag mu nga fa nga xam ne moom moo di ca Equivox ba tey bu nu continuer ci yëglikaay yi dem fa nga xam ne nii nag moom moo di ci record record nag moom ñëw na ci ñaar fukket yoo xam ne ni daal équipe nationale la ñëw tey di ko fa fàttaliku ak ña nga xam ne ñoo ci jot a jaar ci ay équipe yoo xam ne yu marqué empreinte la mel ni ki Yékini ak rëg-rëg ak Eumeu Sène ñoom ñii ñëpp daal jaar na fa waaye dafa mel ni Ambroise Sarr coach ba moom jàpp am na équipe yoo xam ne marqué nañu ko lool lool bokk na ci équipe yoo xam ne ni daal jàpp na ne daal ki nga xam ne nii composé woon na ko moom moo di ku mel ni ki Liwu Thior ki nga xam ne moom moo di Pape Ngatam Omar Calang ak ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg Yékini tamit tudd na ko ak ñoom Moussa Faye ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo doon ñoom Rock Mbalax Saliou Diouf ak mel ni ki équipe yooyu yëpp ñëw na ci Abdou Badji tamit ñëw na ci lu mel ni ki noonu mel ni ki moom itam na ci équipe yooyu yoo xam ne daal marqué nañu réew mi wala lamb ji wala boog drapeau de l'État na ci ay Moussa Faye Omar Diouane Cheikh Tidiane Niang ñoom Sélémélé ak ñoom rëg-rëg am nañu ñu baree bari ñoo xam ne daal joxe nañ seen xalaat tey ci lool nga xam ne nii moom la record indi tey samp ko di ab laaj ka ko def nag di abu nduur mel ni kon tey loolu moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi Seexu Omar. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ah dama leen di nuyuwaat rek maa ngi jéglu nag soj mi la nga temps yi moom soj mi grippe yi moom yaa ma gën a xam. dañ leen di ballu àq tey di vendredi hmm, tombeek 11 décembre dañ leen di ballu àq bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ko ñaanal bépp internaute bi nga xam ne wala téléspectateur bi nga xam ne yaa ngi suivre sa télévision en ligne bi nga xam ne moom mooy Equivox di leen nuyu yéen ñëpp ak Vox Arena di wax ne daal ah yàlla na jàmm am Sénégal yàgg fi lool sax la ñu am na fi yàlla na yàgg am ci àddina bi yëpp coronavirus bi dikkati na wala boog mu ngay continuer comme deuxième vague ni ñu ñun nag bu ñu sañoon première vague du am ba deuxième di am sax waaye ku sañ te bañ sañ a nangu ndax laa tax mooy borom kun fa yàkkoon muy sunu borom mooy tege moom nag ay nattoom ay jaam rek la koy teg kon yàlla ñu ko tegeel barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah sama doomu baay nag di ministre de l'intérieur monsieur Antoine Diome ñu koy nuyu di ko ziar waaw ndax moom xam naa bu ñu ñibbi ñooy bokk oto ndax xombal la dëkk te man damay dem baal du nangal ma wàccee rek def nii droite utali ndondal dem ak yaay kon xam naa sorentewunu mën naa ne ñoo digalooy tool bokkaat njoomeen gi moom moo yore ministre de l'intérieur démb nag génne na ay ndogal yoo xam ne nii maanaam dajaloo bi salle salle de spectacle yeeg yooyu ñu wàññi ko wala bokk ñu taxawal ko te respecté masque yi ngir que mbir yi mën a dem ah loolu defe naa am na solo nañu topp norme yi rek waaye itam bu ñu demee ba xamuñu fu ñu jëmit nañ utaat yeneen solution rek parce que tamit réew mi taxawaay bi wax dëgg yàlla metti na waaye daal yàlla yàlla def corona bi dem ak jàmm waaw di ko nuyu di nuyu police yëpp rawatina sama benn góor Ablaye Ngom Siri Assu Diom sama rak maa ngi koy nuyu bu baax a baax faat Siri Fatma Sène Ablaye Ngom ca ak yaay maa ngi koy nuyu di police di nuyu ñi ñu suivre ñëpp tey nag fi nuyu njëkkee mooy xët wu njëkku yëglekaay bi ñëw na ci ah Modou Lo roi des arènes kay wax nag mooy biram ñi nga asam biram nag ne na maanaam daal leneen lu ñuy négliger ci combat boobu amul benn détail duñ bàyyi dara lépp la ñuy dajalee hélas maanaam teg nécessaire yépp ngir bañ a ñàkk combat seen diggante ak Ama ma ne waaw jar na ko parce am muy Ama Baldé mbër ne yàgg na bëgg bërik Modou Lo mbër moo xam ne Modou Lo xam ne Modou Lo dafa daan magam tey nag ñëw loolu lépp mu ràngoo ko kon defe naa kooku ngeen jëmee ci moom ah biram waxuma waaye bu ngeen négliger ah combat boobu dama naan ku ci naagu daagu te ku daa te ku ci daagu am du boo xam ne bu jara xaar la biram ñu nga xëy wax loolu jàpp na ak Modou tam àlla boog ak Balla du ñu benn waaye ñaari mbër lañ yoo xam ne nii bokkuñu style de bëre bokkuñu taxawaay bokkuñu bind waaye ñoom ñaar yëpp ay doomi champion ay mbir waada lañu waaye am nañu différence moom loolu moom am na loolu moom lu leer naññe la waaw leneen ci des mooy dana muudu sol ak lu mel ni force ci combat boobu moom faw nga gaaw faw nga am doole ji wóor hélas pour mën ko gagner loolu du mën a li am Lac de Guiers 2 Tapha Tine yëglikaay bi tamit ñëw na ci ñoom ñaar bu dee Lac la mission commando la am diggante mag ëmma waa combat bu metti foofu dafa nar metti waaw loolu moom dana metti lool lool lool ndax li tax mooy Lac dafa bëgg a génne Eumeu Sène géejawaay ndax wax na ma ko bërki démb te Eumeu seen du nangu loolu dafay bëgg a reste te dafa daane kon loolu dina metti dana xat lool tafaati nag bawal faw mu indiwaat bawal tegaat ko ci raay bi ndax résultat yi nam ni muy demee actuellement baaxul moom nag la ko maanaam li tax ñu wax loolu mooy écrit ba xam naa moo doxatul doxin woow ci ay résultat victoire te tey mu ngi am combat ak Boy Niang kon foofu itam combat du ko gën a metti diggante ba combat jànq ngi noonooti bu doyati waar yàlla nañ fekk yëpp te tal ko saison bi ubbi ah ndax corona bi moo ñu gàllankoor mbay yi ki ni saison boobu dem génn na wax ci def ko de presse suñu frère moo na mi mbay maa ngi lay bëggee waaw wax na daal li nga xam ne nii moom la jàpp ne war na mën a effectivement man li li mu wax démb defe naa loolu xel war na ko nangu que waruñu bàyyi ñi ñu jouer hélas ñi ci des ñu toog loo leen déedéet ñun ñëpp bu ñuy tere nañ tere ñëpp parce que ay sénégalais te li ñu def kii tëgg soirée ci salle wala mu koy tëgg ci euh, restaurant wala même ci euh, benn télé ak fu mu mën a doon daal li am solo mooy bu loolu day am waa lamb ji tamit dañuy dem ba dañuy yaakaar ñoom pourquoi xanaa bokkuñu ci réew mi xam naa loolu tax mbay wax démb parce que mbay tamit xale la ñu koy nuyu di ko ziar di jéeglu nag démb waaw di jéeglu waroon nañ ci teew parce que yow suñu frère la ba tey bu ñu continuer ñëw ci Basiru Ba bokk mënaan sa Thiès yi ñu mel ni ñoom seen kuréel googu dañ ko fas yéenee feere nag mu dëgër waaw day day day kii rek fu waay jóge ñëw dugg record bu nu fa demee rëg-rëg Yékini équipe nationale yi ñëw nañ ci defe naa foofu tamit ku ko ubbi tey da nga gis waaye équipe yi ñu fi lim yëpp yëpp defe naa ne moom daal ay ku ci ne bi nga ñëw équipe nationale marqué nga sa empreinte borom xam-xam di ko ziar di ne ci réew mi di ñaanal jàmm di wax na mbaam gàtt waaye ci jur gi la bokk Bombardier wax dëgg yàlla loolu seere ca biir mu ndax am nañ ci écho que yàgg na leen di jàppale ci loo xam ne doomu na fukki at parce que mu ne ne ñooñ ak ay kayit lépp mu jébal leen ko valeur boo xam ne xaalis bu bëri la dafa naa itam hélas la may wax rek hélas koo tanati dimbaloo ko yéen a yem kon Bombardier loolu mu def dem ñu ngi ko ciy jaajëfal di nuyu di ko nuyu di nuyu soxnaam di nuyu ay xaritam ñoom Cheikh man Mansour Diop numéro de ah Omar Mbaye di nuyu képp koo xam ne doomu mbuur nga ñoom Obama di nuyu tamit waa Sali ndax hélas bi Sali Sali neexoon na de hélas ah. Sali du ay fo de Sali Portudal kon Bombardier jërëjëf di nuyu presse bi fa teewoon ñëpp rawatina sama seex bi sama rak Lamine Seck bu TV maa nga koy bëggee nekk ca centre commercial Khalifa Sall ba ca Dakar biir ville maa ngi koy bëgg di nuyu Rimka Couture sama tailleur la ah, ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu képp ku ñu mais di nuyu waa Bawol sama mbokk Bawol Bawol maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Saloum dëkk ba waa Passy ak waa ñooro dëkku xule du mën a ñàkk ku bokk ci gétt gi naan ci meew te koy xalam di ca jaay yàlla na Sénégal am jàmm leen wax ne nag xaar leen tey di ngeen amaat beneen vidéo waaw bu bu bu bu bu kii noonu lay demee Equivox la Vox Arena la du mën a ñàkk.